mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat di leen gërëm bu baax am mbégte teewaat bi di sant yàlla bu baax ci ndimbalam ak kattanam gin fi teewee du nuy ñëpp di leen ziar ci 30 minutes chrono di leen fàttali ni désormais jeudi yi 21 heures lay doon ci solution info TV di leen jaajëfal bu baax a baax di nuyu El Hadj Modou Diouf ci régie bi Fallou Top Ablaye du nuyu ñëpp di leen ziar. ñu door waxtaan wi ak niñ ko faral di defee mooy actualité bi ak tey ni ngeen ko gisee ci titre bi mooy pexe ak complot ak tappale parlementaire maanaam commission d'enquête parlementaire bi ñuy wax ca assemblée nationale ngir lijjanti waa PDS waaye waa APR tan ak Benno lijjantiku waale ci maanaam du lijjanti PDS moo tax a jug Macky Sall ak ñi mu àndal mais lijjanti waale seen mbiri bopp jaare ko ci PDS PDS nag parti la boo xam ne moom depuis deux mille dix-neuf alalu borom barke la dañ koy jariñoo mais munul jariñ boppam loolu c'est vrai PDS alalu borom barke la dañ koy jariñoo mais mënul jariñ boppam te tappale yi nekkee ak Macky Sall yëpp man dama jàpp ni pexe la ngir mën a gàllankoor projet bu Pastef maanaam anti léegi nag gàllankoor yooyu ngir ñu def ko pexe yi bari na te njëkkewul tey parce que bu nee atum deux mille dix-neuf Macky am juróomi candidat Karim ñu na bokk xalifa ñu na bokkul waa parti démocratique sénégalais nanguwuñ woon ut candidat te pourtant boobu Omar Sarr mu ngi fi keneen ak keneen mi ngi fi ma dikkee keneen ak keneen keneen mee PDS daf ne amul plan B ñu dem ca Conakry ci Alpha Condé ñëwaat président Macky Sall président Abdoulaye Wade ginnaaw ba mu ne nan toj urne yi élection du am fiche bi ñuy demee élection baaxul fiche bi ku ci dem dinañ la gagné. boobu ñu ngi préparé pour man victoire président Macky Sall parce que jamono jooju xalifa Sall bokkul ci élection yi mais dafa def choix dem ànd ak sa Seck boo xoolee ñi ëpp ñi demoon ci parrainage bi deux mille dix-neuf amuñu parenage wala ñu génne leen ci parrainage bi danoo dem jàppale kenn mooy dem jàppale sa Seck. te pourtant boobu Ousmane Sonko mu ngi fi mais dañ ko fi bàyyi woon ñoom ñëpp dem jàppale Idrissa Seck parce que dafa am li ñuy wax conservation du pouvoir maanaam mi waa PS di waa PDS di système bi fi nekk 40 ans musuñu ànd PS ak PDS mais fi mu ne nii mën nañu ànd ñoom. mën nañu ànd parce que boo déggee xalifa xalifa Sall ci France 24 woo naa Karim te maa ngi koy jàppale ci li mu ne wax jooju mooy ñoom ñëpp pare nañ pour ànd maanaam seen gëm-gëm seen idéologie ci wàllu libéralisme ak socialisme yépp ñu jël ko dàqu fële te fii luñ fi dajul ci PS ak PDS ci ñaari parti yoo xam ne ay tonton Macourt yi nekkoon PDS ak euh, li naan les calots la reyante nañ ci réew mi reyante gune affaire maître kër Seye lu ne jaar na fi ci diggante PDS ak PDS 88 93 mais pourtant tey mën nañoo ànd parce que benn nit moo tax ñu mën a ànd mooy Ousmane Sonko leen bëggul maanaam le projet de Pastef je ne parle même pas de la personne de Ousmane Sonko parce que bu doon jëmmi Ousmane Sonko Ousmane bokkul mi ngi ci kaso bi. ñoom mun nañ ni sax jomaay mi ngi fi peut-être moo gën a duumoo mais képp ki incarne projet Pastef bëgguñu la loolu benn entre parenthèse la woon rek pour wal leen ni dafa nekk guerre système ak anti système ji nga 2019 ñi ñu dekkale ci parrainage bi yëpp idi leen dem jàppale ji même bu munul te boobu idée ak Macky réeroo wuñu loolu mooy conservation di pouvar mooy la Abdoulaye Wade waxoon dama bëgg ñun libéraux yi ñu def fi cinquante ans te libéraux yi ci réew mi socialistes yi ñoo leen jur te li koy firndeel mooy Saliou Dieng tey jii mi coordonné la parti démocratique sénégalais ndax loxo ndeyjoor bu Karim Wade moom Saliou Dieng maanaam magi wala rakki Ousmane Tanor Dieng mooy baayam ci li ñu wax waa ñoom nag daf mel ni luy nëbb la maanaam doomu parti socialiste ci xibaar dan moom mooy tey jii ki gën a dëgër ci PS nekk PDS nekk ci assemblée nationale mooy wane ni mburu foofu ko fëriñ benn lañ looloo tax tey li xew ci assemblée nationale am a tàmbalee foofu warul bett kenn 2019 ak tey jii dañuy gis parti démocratique sénégalais xam na ñu bari ñun ñi xaw yàgg ci médias yu tuuti da ngay comprendre daan nga jóge sa rédaction ñu ni la demal maison du parti socialiste wala demal maison El Hadji Oumar Lamine Barchi wala jëlal sa téléphone bu paree le porte-parole di comité directeur wala comité central bu PS nga woo ko téléphone ngir mu defal la compte rendu comité directeur parce que semaine bu ne wala comité central commune bu ne dañuy daje bul dajee wax seen xalaat ci réew mi soit ñu nekk dans l'opposition soit ñu nekk dans le pouvoir mais ban kañ ngeen gëj a dégg le parti démocratique sénégalais daje ci conférence de presse di wax ci li yitteel réew mi jël position en tant que opposant 2019 à nos jours le comité directeur du parti démocratique sénégale est-ce que dajeeti nan di wax ci réew mi wala ñuy wax dara ci nguuru Macky sàll moo tax ñun danoo am ne amnésique dañuy fàtte quoi mais doxalinu PDS parti boo xam ne mun nañ wax ni bokk na ci parti yu mag ci réew mi xëy rek noppi ci réew mi xam ne ñu bari dan naan transhumance mooy nga jóge ci parti dem ci parti mais dafa am beneen transhumance boo xam ne sa kàddu ak sa ngëm-ngëm la jënd wala sa silence nga noppi <laughs> maanaam da ngay noppi maanaam yow waxoo ni damay dem fekki yi mais da ngay noppi te wolof yi dënn ku góox du wax ku lanc du wax noppi koog PDS noppi ci nguru Macky Sall à nos jours loolu war nañ xoolaat lu mu doon ah kon tey jii li xew ci assemblée nationale ci une chute logique maanaam way wi dafa amee daaneel ci assemblée nationale mais mosuñu réeroo ay masalikul naan protocole ak ñu naan wàddi seet naag makeek mais il faut dire la vérité yooyu yëpp lu doon dut duutal rek mais way wi moo am daaneel wala fi denne lu tëw feeñ dafa yàggul mais tey jii bu doon ni lu ëmb la wasin na loolu tax Adja Aram Dieng ak socialité politique du ëmb waaye day xëy wasin tey jii nag wasin na ca assemblée nationale leer na naan ay candidature Karim Wade ak ay lii yëpp wax ji yëpp waxatu ñoom na Karim Wade bokk dégg nga waa PDS au début loolu lañ doon gëmal mooy Karim dafa war a bokk ci réew mi la bokk. du tëdd jéeri du mbadantaan fi la réew mi bokk bàyyam mooy Wade loolu kenn du ko weddi le débat sur la nationalité li ci conseil constitutionnel wax wax na ko ci jeex na mais tey jii man mënoon naa d'accord waa PDS ñëw taxaw ne Karim day bokk Karim day bokk loolu bu leen neexee ñu wax ko parce que nit Sonko yi ñu ngi ko doon wax mais jusqu'à diir dire que élection du am maanaam loolu c'est aller trop loin. mais loolu c'est trop prétentieux de la part du PDS ñoom ñooy ñan ba ne élection du am PDS ñoo ñan diriger na réew mi 12 ans élection di am bu ma juumul 2005 ba 2007 mais amoon na fi élection législative yoo xam ne mais boycott opposition bi danoo boycotté woon na élection du am ñu dem ngemm ñoom Modou Diagne Fada ñu créé waar wi dem assemblée parce que boobu dañ doon bëgg a taaral assemblée ci la Idriss Seck waree gaañi woo leen ci boycott ba nu boycotté mu dem élection entre libéraux fexe nañ ba delluwaat gars nit ñi foog ñu danoo réeroo ñoom Ousmane Tanor Dieng ak parti du gauche yu fi nekkoon yëpp génn dem taxaw nele le ànd ak libéraux yi ñu dem élection gagné assemblée nationale bi am la majorité mécanique parce que boobu Moustapha Niasse sa PS sonal na leen biir assemblée. parce que Wade loo ko mën a waxal démocrate la parce que bi mu ñëwee en 2001 euh, bi ñu demee élection législative ba noppi. benn groupe parlementaire la opposition bi am mais Wade dafa fexe ba ñu changer code électoral bi permettre AFP am groupe parlementaire PS am ko Wade ko defoon un grand démocrate mais bi ñu demee ba 2007 xam nga politique gars yi di la jay naan la ñi sa noonu la ñi boo leen may li ñu fexe ba ñun ñëpp beddeeku ay LD kenn ñëwul ñëpp beddeeku loolu da amoon nañ fi. benn assemblée nationale boo xam ne c'était une majorité mécanique et électronique du parti démocratique sénégalais parce que libéraux yi rek ñoo nekkoon ci assemblée bi Wade dafa créé woon sax opposant yoo xam ne pour taaral assemblée mooy waar bi bu mu jañ fadaa ca la juddoo woon kon ñu danoo yàgg a nekk ci ay pexe ak ay dil léegi nag cinquante ans yooyu mu waxoon logique boobu lañu nekk mais logique boobu danoo sóoraale wu loon un parti qui s'appelle Pastef pour man Pastef mais ñoo xajamal cere ji parce que bi Wade di wax loolu sóorul Ousmane Sonko soorul ni dina am un projet politique boo xam ne day ñëw ndaw ñi adhéré ci jël la projet porté ko jëm nañ fi yàqee Ousmane Sonko nu ne mais suñu borom sottalu ko ci jamono mooy bi Wade wootee en 2019 Ousmane Sonko bàyyi campagne am ñëw seetsi ko. léegi nit ñi ne waa ji moo ne woon nañ fusiller ñi incarné le système tey jii moo dem taxaw système bi c'était pour wàññi te 2019 loolu bokk na ci li wàññi électorat wu Ousmane Sonko parce que Wade mënul recevoir en 2019 Ousmane Sonko ba pare mais ci yoon dafa war a joxe ndigal ne mais jàppale leen ko wala ngeen bàyyi ko mais Wade joxewul ndigal. dafa recevoir Ousmane Sonko jaxase ko ak sénégalais alors que Ousmane Sonko je pensais que dans sa tête mais parti démocrate Sénégal lu mu dee dee am na 10 pour cent yu mun a jox ab opposant mais le fait que le parti démocratique sénégalais neutre en 2019 bàyyi Macky Sall mu déroulé ñu wax ay waxi fichier li ma gëmul man gëmul ay waxi fichier waxtaan naa ci ay experts même neuf un million de personnes yi naa nekk ci fichier bi yooyu yëpp du dëgg paraît-il ay waxi politique kase la. pour décourager pour layal mbir mi ni tey jii mënuñu dem election ay un million de sénégalais nekk ci fichier bi ñu écarté leen ci élection yi maanaam loolu leen bëgg maanaam loolu da nga ko dugal mais thèse boobu jàllul parce que tamit pour wax loolu il faut nga jël fichier bi ñu audité ko ñu xool kon loolu jëm nañ ko jaay ba sonn ci leen créer collectif des candidats spoliés mais ñoom Mimi Touré nandité yi bu ñu demee ba xam ne ñii day tappale ci lañ ci génn dem nekk ci leneen mais collectif boobu tey jii ñi ci ne ñëpp mooy ñi nekkoon ci nguur gi ay ñoom le directeur Samba Ndiaye Samba Ndiaye fa la nag moo jiitoon les grands trains du Sénégal nee na moom ci candidat expolié yooyu la bokk mooy kii Cheikh Tidiane Gadio député à l'Assemblée nationale membre du Benno Bokk Yaakaar Aliou Ngouye Ndiaye ma ne candidat la te bokk na ci démb la génn ci Macky te gaw ma ni génn na ba léegi kon les candidats espolier mooy mooy waa Benno rek mais da leen sànni ci àll bi ngir ñu mën a jaxase ak jur gi ruur leen pour ñu mën a jaawale nit ñi di am problème naan ñu naag weex na ñu naag weex na est-ce que kii génn na génnul pour jaxase carte gi mais politiquement sénégalais yi dañoo mûrir dañoo ñor moo tax yooyu yëpp jàllul boo xoolee les candidats spoliés kenn tuddatu leen léegi ñu jël beneen arme bi mooy le parti démocratique sénégalais parti démocratique sénégal nag ak la xew ci assemblée man dama jàpp ne ay caaxaan la ay tappale la parce que mënoo fi nekk en 2011 mënoo jàllale sax ab ticket présidentiel boobu yaa yor nguur Macky euh, kii Ousmane Tanor kii le gars là Tanor kii Karim jiit nekk fii yor lu ne ci réew mi te mënul woon jàllale ticket PDS ba muy yor nguur li mu mënul jàllale ci assemblée nationale tey jii PDS nekk parti boo xam ne bu du woon yeewee askan wi ak yóbbaale gi leen yóbbaale ci local ak législative local ak. yi weesu ak législative PDS fan ngeen gis mu battre campagne ci réew mi dañ ko campagnal gañal ko mais bu nekkoon la PDS kase du egg fii il faut dire la vérité parce que ñu ngi woon ci terrain bi ñu ngi gis man gisuma mu élection yi dem na ba yegg gisuma caravane PDS bu dajee man je de la banlieue mais j'ai vu que gisuma bu dee amee feneen nag am na waaw nit day maandu mais man teguma sama bët caravane PDS bu dee am na sax fu ma sentir ni am na mouvement ak ay yëngatu yu amoon mooy géejawaay j'ai senti que ñoom Bassirou Mbacké Diatta yooyu moom yu ma teg sama bët la mais PDS ñun waroon xeexee xeexuñu ko Ousmane Sonko moo leen xeexal ñoom ñëpp ba ñu gagné tey jii moo leen man may la nombre de députés yi ñuy tiitaroo bëgg a créer une crise institutionnelle alors que crise institutionnelle amu fi mun nañ wax ni nag crise politique am na crise politique mooy la majorité. parce que bu dee ni tey ji Amadou Ba mooy candidat wu Macky Macky Sall tànn ko tey ñu dem ca assemblée nationale ñu ne Amadou Ba dañ koy tuumaal ni moo ger ay juges yu conseil constitutionnel mais il faut apporter les preuves kon tey ji ñoom politiquement ñoo am problème ci seen biir mooy seen problème mooy Amadou Ba mais man sama yoon nekku ci ban koy tànn moom lañ wóolu woon peut-être bu ñu demee boo wóolatu ko loolu seen problème la mais il ko ñu respecte ñu xam ne ñun seen problème politique warul tax ñu reporter ay élections wala bu dee ni Karim Wade dafa nekkoon candidat wu Macky Sall waxuñu ñu ko mu dem ba tollu fi ñu toll ci élections yi mais yaakaaram tas ci Karim Wade wala mu diggoon ko ci dialogue ba lu mu deful xam Macky day nandite politiquement nag Macky day nandite. mu xam ne diggoon naa ko lu ci dialogue bi mais jàllul mais il faut que ma naxee ko assemblée bi wan ko ni maa ngi lay jàppale léegi bu ma la jàppale le du léegi affaire assemblée mun na bañ a mujj fenn mais mu doon li naan gor ku ko teral yaa ko tëral maanaam ba ba ba PDS soxlaa gis na nu AF APR jàppale ko ca assemblée ak waa Bennoo kon nag. bu dee ni leeral nañ lii ba mu leer dangay ngay déglu démb député Benno yi seen wax dafa évoluer mooy lii dañ ko war a leeral ngir ñu seetal suñu candidat am na ñu ko wax ci député Benno wax jooj ñu wax dafa am solo nañ ko leeral pour seetal suñu candidat yi suñu candidat Amadou Ba léegi tey ji mun na dem ba ci commission bi commission bi mun na bañ a doon pour taxal wala dara de mais mun na dem ba ci biir ñu ne non li ñu doon jiiñ amul léegi nag dañuy dem élection parce que temps bi may ñu ko léegi waa PDS def benn motion parce que tey dégg dañuy def assemblée générale mais assemblée générale bi ñaar moo ci mën a génn mooy ñu joxoñ fu ñu fu ñu jëm ëllëg wala beneen bi ci topp ñuy wax waxi report alors que report bi mënul demee noonu parce que li tax ñu mën a reporter le pré euh, élection amu fi mooy ay catastrophe am fii wala ñu am ay éléments extérieurs yu jugee feneen ñëw di salfaañi réew mi ñu def état d'urgence wala état de siège maanaam xaju fi te Sénégal ñi ngi ci jàmm de ñun xeexuñu xuloowuñu xale yi nee nañ xeexuñu xuloowuñu ñoom seen ñoom daal seen kudd jàmm lay ràcc ñoom daal bu dee benn am na lenn lu ñuy daas mooy seen i carte électeur boo xale yi moom ñi ngi daas seen i carte électeur daas fanaanal ren di day bette te jàpp na ne bisu ren bi le cinq la jeex na xale bu dee lenn la daas ña ngay fanaanee daas mooy seen carte électeur te nag loolay fulla focus xool ci kanam ndaxte wala fii nag dañ ne ku bëgg a jooy da ngay tooñ ku la mën ngay tooñ ku la mën fii ku ne xam nga ku la mën mais élection kenn mënu ci dem ak ay certitude ni diw mooy gagné par force loolu moom xola nalaw sax la nalaw la parce que tey jii élection mbetteel gu ne mun na am parce que lan la no Ousmane Sonko day bokk par tey bokkul Diomaye moo fi ne kon carte gi mun na changer ñu ne Karim day bokk parfois bokkatul parce que day am reconfiguration politique léegi nag libéraux yi dañoo am benn menace menace bi mooy le Pastef ak projet bi mu teg ne système ñun dañ fi bëgg a jël li fi ne indi fi leneen seen vision ci cinq la waaye ñun ñu ngi projeté wu ci cinquante ans boo xoolee ñi fare ci nguur gi ak yeneen pa euh, opposants yi seen wax yépp mooy nan lañuy def ba conserver le pouvoir mais le parti Pastef ak ñi ñu àndal boo déggee seen wax ñi ngi nekk ci logique gu exercer la pouvoir maanaam ñii dañ ne danoo bëgg a téye nguur gi ñii ne dañ cee bëgga jot waaye ñoom nee bu ñu jotee nguur gi fii leen jëmee réew mi kon ñoom doon am nañ benn avance alors que nit ñi foofu la ñuy xaar yi politique mooy boo leen jëlee réew mi fan ngeen ñu jëmee. te loolu leer na gis nañu certains candidats dem di signer lii di assises nationales yi mais le projet de Pastef ak seen téere bi naan solution ma nga ca kon ñoom bi pare paree yàgg na léegi nag projet boobu ñu teg lu ñu bari jàppoon ne projet bi day naax saay ginnaaw bu Ousmane ko duggee kaso ñu jàpp ni le projet Pastef du am candidat moo tax ñu gis. bi ne Diomaye candidat la mu tiital leen ba nu gis Amadou Ba def recours pour barrer ko recours Cheikh Tidiane Dieye mais pourquoi barrer wuñu Habib Sy pourquoi barrer wuñu Habib Sy pourtant Habib Sy les onze les treize députés de Pastef la demee mais kenn gàllankooroon ko parce que le projet c'est un projet jeune ay jeunes ñoo koy incarné un Cheikh Tidiane Dieye wala benn. Bassirou Diomaye fay mais il fallait ñu baare leen parce que ñoom ñëpp li nu defoon ci seen xel mooy tëgg ay élection te Pastef du ci bokk ak képp ko xam ne da ngay incarner le projet ñoom loolu lañ jàppoon. léegi nag à la surprise générale ñoom kin bëggoon mu wéel seen seen i mbir maanaam ku mu bëggoon mu wéel cinquante ans yi di Karim Wade man dama jàpp ni ñoom danoo bëggoon Karim Wade ñëw logique bi libéraux yi ne conservation du pouvoir mu ñëw continuer. yàlla gàntal loolu loolu tax bari pexe juba ko gën maanaam jaam ak pexeem rek yàlla ak dogalam yàlla gàntal loolu ki ñuy bañ naan warul indi beneen projet di Bassirou Diomaye fey ak Pastef kooku jàll parce que ñoom seen logique mooy même boo dégloo démb xam na tey jii ñoom boo leen dee déglu loolu tax wala fi nee na deel déglu say noonu sax mën nañ di wax lu la jariñ boo leen dee déglu dangay ngay comprendre ñoom fi ñuy waxee Coura Macky ñu bari nu ngi ko jàppee ab comédien woo ko wala koo xam day wax lu ko neex rek mais Coura Macky des fois day dugg foo xam ne day nooy parce que bi mu nee démb élection yi dañ ko war a pousse report Karim Wade bokk Diomaye génn loolu la lay sous-entendre est-ce que duñ wax lu luñ wax ci suuf mënu ko tell ci kaw parce que seen problème mooy le projet de Pastef parce que ji nga ne nit ñi gëmee Pastef ba jàpp ni projet la bu fi war a ne noonu la ay nit taxawee na projet bi warul jàll moo moo waral ngay gis ay sëriñ ay sëriñ ca assemblée nationale ñiy xataraayu di rey seen bopp di wax wax yoo xam ne da nga naan ñii est-ce que wér na maanaam taxali ko seen sago parce que seen problème mooy projet Pastef la ñuy bañ mu jàll nga gis ay journalistes yoo xam ne leen koy jaral dem ba ñoom ñu wàcc seen yoon pour gàllankoor la projet da leen koy jaral nga gis ay homme d'affaires pour gàllankoor le projet maanaam du rek PS wala PDS wala Macky mais dafa am ñoo xam ne tey ji le projet ak li projet bi di incarné ak fi ñu jëm ñoom arrangé wu leen lépp lu mën a def ba gàllankoor ko loolu tax yoonu Pastef du yomb loolu tax élection yi du yomb de loolu tax ñoom il doit faire tout pour que élection yi am jamono ji ay nit taxawee ñu naan la ay candidat spoliés yoo xam ne mun ñu am parrainage man dama gëm ne dun tous candidat yooyu seen làmmiñ lañ yor amuñu parrainage ñu sóob ji nga yooyu candidat taxaw na le mais les vingt yi dem élection ana ñu mais Pastef rek ngay dégg ñu ne élection day am wala ñenn maa ngi dégg Malick Gakou dem maa ngi lii nii mais les vingt candidats yi war a dem élection mais du génn def conférence de presse daje wala ñu def un commu un communiqué sax boo xam ne ñoo ko bokk ñoom ñëpp ñu signé ko li mu jaral ñële pour que élection du am mais mu jaral leen ko. mais ñu wante dëgg mais tey jii ñoom ñëpp ñi ngi ci calcul politique ñi ngi ci ay tappale man démb maa ngi koy wax nee naa ànduma ci député Pastef fii demoon sax ca assemblée nationale parce que di xoromal gaay mais pour dire la vérité mais ñoom ñëpp politicien calcul moo leen rey nan gëm yàlla te xam ne nguur yàllaa koy joxe PDS mi bu mënoon joxe nguur jox ko boppam Macky sàll bu mënoon joxe nguur day ut troisième mandat. nguur suñ borom a koy joxe wërsëg ak deewa yam nit du ko xañ nit nit du ko jox nit mais ñoom ñan taxaw mais tey ji ngay gis sax ab député opposition taxaw naan noo commission bi ànd naa ci mais àndoo ci ku làmbul sa àndoo ci parce que ay tapale la mais parce que da nga jàpp ni boo ko waxee électorat wu PDS alors que PDS ñi koy incarné ci kaw ak base bi bokkuñu lu ñu mais PDS ni muy doxee nii ak yii ñu ne mais am na ñu am ngëm-ngëm ci bere ay gor ay garmi ay gararar yoo xam ne bu buñ sañoon système bi jóge fi parce que nag li leen naqadi yépp système bee ko teg 2012 en un jour pérès daj na fi lu ne li passé fi daj ne da nga ko daj mais tey jii il faut que ñu xam PDS dëgg bañ di ay calcul politique parce que bu mu àndul ak PDS bu ma waxul ak PDS waa PDS seen électorat mais pas PDS nan farak ku leen neex bu mënoon a fale fal seen bopp loolu tax politiciens yi nan bàyyi calcul yi léegi nag. anti système yi war a xam seen bopp ak coalition XXL ak fi ñu jëm même coalition boobu ñu wax bari na sax ñi ñëw di ci dugg sax gëmuñu Pastef gëmuñu bi dañ ci dugg rek benn pour intérêt politique wala ñu infiltrer leen lépp lu ñu waxtaanee ci salle wala ñu lal ay pexe parce que <laughs> Pastef danoo bari pexe ñu lal ay pexe ñu dem waxi ko Macky parce que man li ma gis mooy yoon wi Pastef ñeme na ko. te le 25 ñu ngi joxe rendez-vous ñi bëggul dem am la lu ñu yëkk yëg soit ay sondage la wala dara kon coalition bi du ne qualité moo gën quantité kon waa Pastef fi ak Patriote na xam loolu moo gën quantité mais les vingt candidats yi am sens su dem élection te ku ne mun na ci nekk président nag kenn du waat ni Diomaye la kenn du waat ni diw kenn du waat diw mais les vingt yi nan génn. wax a gars yi na leen day dem élection dimanche la campagne bi di door mais part gi ñu ne part wala ñoom dafa am ci vingt candidats yi ñoo xam ne report lañ bëgg ah loolu il faut que ñu bàyyi ci xel loolu tax Pastef nanu yeewu bari na ci vingt candidats yi ñoo xam ne créer na leen mais pour gàllankoor la projet de Pastef la da ngay dégg ñun la candidat sangam moom de nitu daara yi war lañu ànd parce que Pastef bu ñu koy wax ndaw yi la. mag ñi ak nitu daara yi parce que dañoo gis ne waa daara ji bëgg Pastef loolu loolu moom phénomène beex man xaw ma lan la du ñàkk ni bu leen invité ñu analyser ko mais waa daara yi ngay gis ni mais est-ce que am na benn candidat bu ñaa mooy candidat waa daara seetloo est-ce nekkul waa daara yi leen bëgg a détourner wàññi doolee Pastef jox ko candidat daara yooyu des fois ñun la kii mooy candidat wu jeunes yi alors que yi ñi ci ëpp Pastef lañ jox bopp loolu tax ci biir candidat yi 20 yi am na ñu ci créé ñoo xam ne aussi da ngay jàpp ni ñoom sax mun nañ bañ a xam li xew ñoom mun nañ am logique gu am ambition parce que nit nag moom délit d'ambition amul ci réew mi Pape jibi bu ko neexee nekk candidat sëriñ boobu bu ko neexee nekk candidat keneen ak keneen mais état day am information yu dul am mën na vingt candidats yi ñu nu baree nii nga ni parrainage damay filtrer damay segg mais nga segg ba pare vingt candidats am noonu ñu ko séddalee. mooy am na benn électorat bu ñu bëgg a effriter loolu tax Cheikh Yérim sekk boo koy déglu yenn saa yi da ngay ku ba xel mi di ko déglu xel baax na parce que dafa ne 34 wala cinq pour cent pour passer moom ci ay chiffres xam nga moom kenn xam fu mu jëlee ay chiffres am waaye bu dee ni dafa tasaaroo duñ dem sax deuxième tour kon noonu muy def di wengal lu mu dugg ci mais man des fois dama koy déglu mais boo jàngaatee liste candidat yi jël leen liste candidat yi ngeen xool. man dama jàpp ni ci kàndaay am na ci ñoo xam ne dañ leen bàyyi ñu jàll juste pour que ñu mën a effriter l'électorat de jomaay kon loolu c'est un travail boo xam ne loolu tax les patriotes waruñu dormir sur leur laurier waruñu naagu parce que nag élection Sénégal yàgg naa may surprise 2012 moo ci mujj ah 2012 tout le monde pensait que le wala AFP ñu jël réew ñëw jël ko. kon au dernier moment am na ay circonstances yi dajee dara lu ne mën a xew mais stratégiquement gis naa ne opposition bi ñu bari ñu taxaw lan loolu tax tey jii campagne bi campagne ñu discours la mais campagne explication du sax ay campagne folklore tëgg fecc yuuxu mais wax ak nit ñi parce que dans ci vingt candidats yi dafa laaj une explication gën ibbi ubbi bopp parce que dans la campagne li naan ku wax feeñ am na candidat yoo xam ne bu ñu waxee rek feeñ <laughs> bu waxee rek di nga comprendre fa lañ jëm waaw est-ce que du candidat yi sax ñëpp bëgg a dem parce que bëgg a dem taxut a dem mën a dem mooy tax a dem loolu la Senghor doon wax loola tax suñu classe politique bi il faut que ñu xoolaat ko léegi bu dee temps bi jeex na Modou nga def ma signe parce que dama perdre un peu le fiil ci heure bi kon euh, mu ngi noonu bu dee mat na trente minutes pour ne pas dépasser temps di gërëm ñëpp di leen euh, sant di gërëm Ablaye Diallo euh, Abdou Top ak Fallou di jegalu ñëpp di baalu ak ñëpp ah ñun fi tudd seen tur man du mu bëgg sax di tudd tur te xam ne mun nga tudd tur tudd ko ci li ko neexul di leen gërëm bu baax di leen sant Omar Bun Xattaab Gueye moo nekkoon ci kàddu gi beneen alxamis ñu dikkaat ak yéen ci beneen trent minutes crono